asalaamaaleykum wa rahmatullahi wa barakaatu maa ngi nuyu mbokk yi alquran ak sunna ki leen ziar ñaan yàlla sunu borom ba leen defal tawfiq xam naa dama bëgg a fàttali mbokk yi rek xam dama jàpp ne lu ama am solo la waaye dañ koy faral di fàtte wala duñ ci bàyyi xel dama aju ci ci dijju safar dijju safar dafa làmboog mbóot boo xam ne <clears throat> damay ragal ni hatta aarifuun sa dañ koy dalena dalena rir wala bok duñ ci baye xel te dañ ci waron di tarkiz say bu ñewé ndax daf ñu lijeentil a problème ba daf ñu andil solution ci équation wala bok aqall shay mu andil nañu ñaari possibilité de solution amut nga tel nak te possibilité ñu dafa lijeentilu bare bare ci ko xamni amul xel di xalaat di settantal di settantal mbir yi yam naa ne bokk na ci ndiyu safar <coughs> bokk na ci mbir yi gën a leer ngir firndeel ay mbir ci nit li ñu fas ci diine sunu réew mooy lan soo delloo mbir bi ci soir dangay gis ne ndiyu safar ñaari tarixa yi mag yi nekk sunu réew waxe mag ñu ëpp nit sunu réew على طريقة تيجانية أك لين خمسة موريدية دعاي جسنة نعم نعم لين بكو ديجو سفر وابنون لين بكو ديجو سفر كلن كو لين كو بكو تيجانية ريمبير موي أي خيول يالله جوخ سيني سيرين ديجو سفر كلا يالله جوخي خيول بومك ci li tiijaan yi gëm Ahmed Tijaan te di safar googu tam mooy firndeel ci murit yi xéewal gu mag gu yàlla defal Sëriñ Tuuba taxaw leen fii yàlla lu mu def rek <laughs> am na xikma bu nekk ci ginnaaw xam na loolu ñoom loolu la ñu tuddee mboot sir ñun nag mun nañoo riir di tax mu def waaye yàlla moom def mbir noonu rek fortuite mu am na lu tax yàlla jël def ci ndogalam ci al kawniya yàlla def ñaari tarixa yi gën a mag sunu réew bokk benn bis ku nekk bis boobu am loo cay woote ne moom la yàlla defal sëb sëriñ la day jël taxaw lu tax 18 safar ak yéen xéewal la leen defal soo jëlee Ahmed tiijan moom xéewal gi ko yàlla defal foofu moom la ñoom mu muy tuddee xéewalu alxatmiya xéewalul katmiya loolu mu nga wax ne moom mooy mooy mooy mooy euh, wu la la ci ci li Ahmed Tidiane woote woo cee may moom nga sax kat mi yàlla mooy apogée bi ndax moom mooy li nëbbu la nga xam ne kenn xamut lu mu doon la ko yàlla may ci kat mi yëge moom la fa la fa toll tekki ci ak i moom rek yàlla rek a xam ak comme ni mu koy wax ak séddul wujud li feeñ mooy xat mi yëge ci li feeñ mooy gën a mag léegi wàllu mbay mooy xat mi yëge kooku noonu xam ne soo ko doon tënk mën nga wax ne foofu la jëlee li nga xam ne moom mooy. tànkam teg ko ci ndoddu bépp wali ba yàlla bindee aadama ba keroog àdduna tukki waaye leen xel foofu baax nag <coughs> mooy 18 safar gi ci yàlla mayee Ahmed Tidiane lu dul lu dul loo xam ne mënut nit mënatu may mënatu faa toll mooy 4 millions dañoo xam sax lu mu doon 4 millions dañ ko nëbb moom <laughs> moom doon xalaat sax xet ñuy gëri li xam rek li xeeñ moy lako yàlla may fof moy ba at àdduna tukki ku amati koy teung moy walew lo mënatee wax dal la ko may ci mom lay rogal ade ñëw ci yow deug lañu bax taxaw lañu bax ngeen sétantal di du safar mbuut gi ci nek moy di du safar ci yàlla jël Ahmed Tidiane may ko lo xamne ap walew wàllu mënatu la woote lu tol noonu ndax lépp lu yàlla di mayeeti wàlli moom day rogalaat rek jógee ci Ahmed Tidiane jëm ci yow moom direct moom yow lay jógee léegi ñoo woote woon xatmu ya ca ca njëlbeen ga ñoo ñëpp seen i Ahmed Tidiane moom ñoo doon feesa effacé moom donte euh, sukkeer yi moom day jéem a defar mbir mi mooy ne Ahmed yi am nañu woote woote lu mu woote am nañu ko wootee jiitu ko te ñooñu ay ay ay ay heure yu lañ ko wax noonu daa am benn équation boo xam ne daa posé wu mooy ñoo woote woon ku ci mel ni Hakam Tirmisi wala Ibnu Arabi loolu ñu woote woon ak ñeneen ñu bari génération bi ab suufi bu bu dund pare te woote woo ko bu egg bu jàpp ne egg na te woote woo ko am na sax ab boo xam ne bu ñëw ci ginnaaw boo xam ne noonu lañ ko dippee alxatmiya muhim waaye moom dafa ñëwoon ñi nga xam ne ñoo jiitoon mooy faat seen i bos laal la lañ jàppoon du noonu dañoo juum seen suñu wote woon euh, ki nga xam ne mooy Omar Foutiyou moom loolu la loolu la rotal moom dafay jéem a defar mbir mi daal di duggaat yeneen góor gën a gën a mooy euh, <coughs> xatmiya lu bari la ak almahdawi ak xam ne euh, ba keroog Isa di ñëw mooy ki nga xam mooy tëj mbir mi ngir mën a nangul ñeneen ñi. lañu wootoo ñu bañ koo mabal mu bañ am contradiction waaye li nga xam ne ñoom ci ñu dëppoo nag moom xat mi gi nga xam moom lañ jox Ahmed Tidiane moom te mu woote ko moom wuute naag yeneen keneen ku woote woo xat mi tamit moom wuute nag loolu te ku ñëwaat wootaat xat mi ci ginnaawam faw la ngay jot tey rogu laa da jóge ci moom ndax loolu la wax moom eh, ma kon nag koy weddi du nekk dëgg waaw <laughs> foofu nag moo jar a taxaw mooy kon ñu gëm ne Ahmed Tidiane dañ koo jox xatmiya alkatmiya xewal googu mat googu ma ngi ci egg ci dix-huit saar la tombeel jël tànkam teg ko ci ndodd bépp wali bépp wali ba keroog du tukki ku ñëwa tër dañ koy topp moo tax sax ab tariqa mënatula wér ginnaaw tariqa tijaaniya bu bees bu ñëwaat te jaaru foofu tuddewut mënut mënutul am ku wet li muy wax teg bu ñu amoon rek su amul dama ciy dellu ginnaaw léegi problème am na nag problème fu amee mooy dix-huit safar googu ci la sëñ gu mag wi moom jot xéewal goo xam ne dafay weddi xéewal gi yàlla dafa la Ahmad Tijaan ndax moom ca géej ga tukkeem mboobu ci la egg ci mbat goo xam ne soxlaatut moom kenn benn intermédiaire diggante ak yonent bi sallallahu alayhi wa sallam te di jot safar googu moom ci la Ahmed Tidiane boo xam ne kenn dootul jot yonent jaaroo ci moom problème am na ñaari yi ñu suñu réew mel ne dara xewut si dafa lijjanti lu ri ñaari mbir yi posé mooy lan solution bi mu posé mooy lan imma Ahmed Tidiane li mu woote mooy wax sëñ mag bi ñoom ñëpp li ñu woote amut waaw su boobaa salaf ni moom lañ nekk moo doon leer nekk dëgg te ma Ahmed Tidiane nag sëñ bu mag bi am na ko ci wax loo yorut su fekkee ne am na ñoom ko loo yorut nekkin bi ñu nekkee suñu réew ñu xam ne kon ñi leen doon ñoom ñëpp ci ay caaxaar lañ nekk ndax ña ku nekk ngay. dimbali ay caaxaan ay loo xam ne nekkul ci dëgg te ñoom egguñu dara egguñu fenn ci tasawuf ndax loolu moom à chaque ne ku egg ci la ñuy woote egg ci ihsaan dootoo jàppale dootoo dimbali wax wala ngay noppi ci lay caaxaan 18 safar yii sëñ bi ci géej ga ci tukki ba mu tukki ci mbuut ma ci nekkoon te bu mat ci 18 safar gi mooy lan soxla gu mu soxlaatut benn nupp wali egg gu mu egg ci xiiti kaw tiim keneen kurut moom ci wilaya du fekkee ne muti li may wax nii amut tamit ñu wax ma ñu à dire <laughs> lii de amut li may wax nii mais sëñ bi eggul foofu tamit ñoom gëmuñu loolu tamit ñu wax ma ko ñamale yoo xam ne amul xéewal yi ngay ko yàlla defal lii nag mbokk defal naa ci audio yoo xam ne leeral naa ci doon naa ci tax cité wu ma tey ndax defal naa ci audio yu bëree bëri mais ma koy fàttali rek équation bii nii day mel ni dara amul ñi ñëw ñu ko newaat ñaan ñaan dix-huit safar dix-huit safar ñaan kat mi xat mi yee naan di ku nekk dox say biir fekk ni subhanallah mi ngi ñuy di safar mi ngi mi ngi miy wax ak ñun mi ñuy ibbi sunum xel ñaari góor yi ñu leen tuddee góor yàlla ñoom ñaar mënuñoo bokk benn lañu woote munta munta bokk amandoo munta bokk amandoo am na Tijaan la mu woote na mu ñëwee effacé la woote woon la Ibn woote woon noonu la sëñ bi na mu woote effacé la Ahmed Tijaan woote ndax la mu jël لبو اندي غيناوغي نيكك ووتى ووتى نيتني لولو فيكون صاح نيكولون بين اي بيندم صاح أه حال بريك موكو واني حاجه نيي دا فيك طريقه تجانيه ما تي عمر فوتو نيي دا تي نيكو طالبي ما تي علاج مارك نيي نيكو طالبي su ko nekkoon nekk cab taali bi waaye daa ñëw nekkut cab taali moom fo fo yàlla xel nañ jëpp ñu te li dafa très évident mooy sëñ bi ci jëfam la njëkk a weddee li Ahmed Tidiane nekkoon ndax Ahmed Tidiane la mu woote amul leneen nut soxla lu mën a weesu loolu ba ngay ñëw di ko feneen te lépp ci loolu moom lay doon moo tax ba El ma Malick ñëwee Abdoulaye Niass ñëw ñoom Omar Fouti ñoom dañoo nekk taalibe sëñ bi ñëw moom nekkoon taalibe ci njëlbeen gi dama jàgg nag foofu baat. moy ndax lan fa Ahmed ki doon tëbbee tebe mom mu mo lay tebe wala boog fa lay tëbbee moom léegi moom c'est-à-dire mais nan lolou mu tek problème bu mu poser moy ne nan lolou bis buñ ko bis buñ ko nangulé moy beulé mom baaxatul c'est-à-dire roi des arènes mo mo nam am loolu kay ay commune ko def da ko bari defee legi ay wa do yeneen ko rot mais islam yow ben roi des arènes la mom ñaar roi mu mënut am <laughs> léegi naka nit ñi subhanallah naka la ñu lii mënu waruñu koo dépassé te leeraluñu ko cest dire lii nii wallahi ci dëkk bu sérieux nit ñi wut dëgg amul benn matala bu ñu war a baax di ci wax di ci sonal nit ci senegal bi leer nañ ko teg ko na imma ay junni junni nit fekkee ne Ahmed Tidiane li mu nekkoon muy dëgg ay junni junni nit Sénégal mu di ñu ngi nekk ci ay caaxaan ci gu leen jëmelu ci dara ndax dañoo ñëw di topp koo xam ne la mu woote woo dara mu woote ci ay may mënut nekk bootu wut ci ginnaaw am Ahmed Tidiane mais Sëñ Tuubaa li mu nekkoon mooy dégg kon la Ahmed Tidiane woote woon yëpp dara amu ci lu jóge ci yàlla du doon du saf benn naqare beneen day saf rek day continuer di saf parce que naqaree benn xam ne jóge ci yàlla suñu borom kon léeg-léeg ay junni junni junni junni nit ñi nga sonal seen bopp ci loo xam ne. ay jaaxaani kese la su fekkee ñoom ñaar yëpp a juum nag lool nag loolu moo tax loolu moo gën a te jara tax nañ daal ciy taxaw ci 18 safar gii nii lii lañuy ñuy won lii la ñu 18 safar daf ñooy indil mooy tax ma ne évidence la mooy boroom xel yëpp dëppoo civilisation yëpp dëppoo mais ñaari mbir yu juyoo naqiraan du ñu mus a booloo impossible ñaari mbir yu juyoo mënuñu ànd mënuñoo àndandoo mënuñoo amandoo su benn bi amee rek beneen bi du am wala su nga ne duut daan fii di daan lay doon mooy ñaari mbir yi nga xam dañoo mbëkkante mën nañoo mañ a amandoo ñoom mën nañoo mën nañoo ñàkkandoo waaye nag mënuñoo amandoo moom kon lii lu jar a taxaw la. ca diir dire màggal gi thème principal bi ci loolu la waroon doon expliquer nit ñi sëñ bi fa mu jaar ba wane ne Ahmed Tidiane nekkul raw ko de mooy weddi ne Ahmed Yàlla mu nekkoon baaxut fa mu jaar ba xettale nit ñi ci tariqa Tijaaniyya loolu la seen màggal ga doon doon te mu ñuy feete al xatmi wal katmiya daa waroon doon lu ñu def ba leeral nit ñi na leen ginnaaw Ahmed yi am na keneen ku ñu ndax nit ñi. woote woo loo xam ne mënatul a nekk ginnaaw Ahmed Tidiane loolu lan di jële moom nekkatut ab taalibe léegi nag dem fa Ahmed Tidiane di tibbee mu tibbee fa te wonut jaarut mbir yi rogalaatut jóge ci Ahmed Tidiane lii lu jaral li jënd la beneen mbir boo xam tamit dafa bàyyi mooy lu tamit mu koy laaj nit ñi quoi lu tax léegi Sénégal su tabaski ñëwee wala korité euh, nañuy seen seen mazhab ci fiqh moom mooy mu nekk mazhab bu ni ñu xam bu xam tamit bul mën a angu la moom ay Sénégal ku nekk ak sa weer mais li ma ngi maa gis ne su seen diiru safar gi ñëwee moo xam euh, bu tijaan loola bu murid la ñoom ñëpp a koy defandoo mu dëkk ba koy defandoo loolu lan mooy lan mooy cohérence bi cest màggal waa France màggal tey waa Sénégal màggal suba xaw ma sant ma dix safar tey ji moom fii moom 19 safar la daa mel Sénégal tey seen 10 safar ala kulli xaal naka la ñuy defee ba àdduna bi yëpp su dix safar ñëwee moom benn dix safar lay doon ben benn benn lay doon amut amut ñëpp ñoo koy defandoo ñu nekk Brésil ak France ak ñëpp li am seen dañuy rawante rek mooy oore dañuy rawante comme ñëpp rawante ci oore mais benn bis lay doon te kenn du wax te gisoo moom benn ndigal bu la wax ne yéen dee leen topp nag mais su fekkee ne màgg su fekkee ne tabaski loola ta korité moom suñu gisoon weer Mali sax duñu war ndax ku nekk ak sa weer loolu fan ban boobu tam ban sir moo ci am boo xam ne moom lañu moom lañu moom lañu mënta jot moom lañu mënta dégg ba ni ñu defee noonu wala bokk ay caaxaan la rek ñàkk tegewul ci fiq ñàkk wóorandoog àdduna bi a ala kulli haal lii daal laa bëggoon fàttali mbokk yi ñu bañ a fàtte li ëpp solo ci diir safar gi bu diir safar gi ak baru shaahid ci ne ñaari tariqa yii nii ñu woote suñu réew muskile la mooy tariqa muridiya sax mu daal koy nangu ne ab tariqa la rek loolu murid muskil muskile bu rëy la ci ginnaaw tariqa tijaaniya muskile la may yi sëñ bi am ci géej gi munta munta wér ànd ak may yi feeñ ci li nga xam ne xat kat ñooy gëm suñ ko xamoon moom nag moom <laughs> damay damay ma butu dul butu law la koy tuddee ba xaw ma sa nu mu toll moom Zak Far te sëñ bi tamit soo seetloo bu baax donte tasrixul gisoo fu mu tasrixi xat mi kat kat mi la mu woote ci xat mi lay delloo rek waaye nag muskil bi sax su ko rek ñu ko réglé ne ko xat mi ñu nit mën na koo woote waat waaye du bokk ak moom lu mën a juyoo moom ba ba kii woote mbëkkanteeg bi Ibrahima Ahmed Tidiane woote te sëñ bi soo seetee bu baax la mu woote moom waaw kat mi bu nu ma wax ma ko raw ndax xaw ma lu mu doon waaye moo raw xat mi ko moom. mooy ci weñ waaye lii nga <laughs> li mu woote gars yi ñu ngi koy fàttali ci màggal gi tal ju bari nag moom moo ko woote yàlla defal ko ko ci yoon wi ba ñii di ko ba ba ma woon nit ñi di ko santale boromam gis boo ko doon tegaat ci ni eh, ñuy tuddee xatmiya du doon lu dut eh, xatmiya ndax moom sama gëf moom après martaba bu koy féete ko doo gis bokk wala bokk <laughs> du doon loolu kat mi ndax la ko yàlla may ci géej am na lu ñu xamut ñun doo ci seen yi wax nag ñoom <laughs> lañu gëm la woote la ko yàlla may ci géej gi lan lañ ci xam mooy xat mi ya lañ ci xamut may kat mi gi moom la Ahmed Tidiane woote woon ay problème bi mooy mbëkkante gi di mbëkkante loolu la lu jar a taxaw la lu jar a bàyyi xel la ci ñu si ñu ciy tarkiis bu baax a baax baax a baax Euh, ngeen nit ñi dem ñuy indil ibbi xel ci ci ci ci ci ci mbóot gi nga xam ne moo nekk jil safar wallahu taala alam